maa ngi leen di wax na leen ah, maa ngi maye secret boo xam ne bu dee bayre la dangay bindulu bind lu arrahman da ko lu ko bindal baax da kulli aayati ñu def ci zuyina li balaa ja jeex ñaar lay doon benn bi dañ koy def saafara xooj ko def ci juróom-ñaari parfum yu bokkul xet parfum kii nii def ko ci ut lu bokk ci bukki def ci sangu ci juróom-ñaari fan benn bi téere lay doon nga ut lu bokk ci bukki def ci takkee ko wet ak càmmoñ téere bi kooku waxuma la Sénégal waaye àdduna bi yëpp lay dégg yëpp yëpp lay dégg bu dee côté bayra la su dee kaaraange la bindul bindalul faatiya baax da kulli aaya ñu def ci aaya wa in yakaadu balaa ja jeex nga def ko juróom-ñaari faatiya ut juróom-ñaari xay yu bokkul def ci ut mbott mu dee def ci sangu ci juróom-ñaari fan boo koy sangu da taxaw ci dara mbooleem lu bon lu mu fekk ci yow da koy dindi mbooleem lu neroon a ñëw ci yow da koy da koy da koy dàq bu fekkee <laughs> waa xanaa ma maye ko rek ñu bind lu waaqiya isa waaqaatil waaqiya laysa li waaqaatil kaasiba ba mu jeex ah, bu ngeen pare baax kul ñett waaqiya lay doon benn benn waaqiya bi baax da kulli ayatin ah, nga def ci li nga xam ne mooy inna allaha yarsuq man yasaa bi xayrin bi inna allaha in in inna allaha yarsuq man inna allaha yarsuq man yasaa bi xayrin isab benn bi nga def ci inna haza risquna ma lahu min nafadin beneen bi boo paree nga dugal ci aaya boo jot def ci yaa muhammad ñetti waaxee lay doon beneen bi aaya boo ci def ci yaa Muhammad aaya boo ci def ci yaa Muhammad soo paree nga ut 99 xobu new 99 xobu new xobu new nga bu ne nga bind ci yaa rasaaxu yaa fataahu yaa rasaaxu yaa fataahu yaa rasaaxu yaa fataahu ba 99 nga boole ko saafara see xooj ko ut sungufu or sungufu xaalis def ca daay <laughs> la ut mbooleem xaalis réew ma nga nekk bu dee Sénégal la li ko daggee téeméer ba 10 nga def ci biir sangoo ko soo paree xaalis bi nag ko lekk si si yi nag moom dañoo bëgg xaalis soo paree juróom-ñaari fan yi xaalis bi nga weer ko ba mu waw boo génnee suba teel bu juróom-ñaari fan yi mat boo génnee suba teel koo njëkk a dajeeg bu dee xale bu dee mag bu dee góor bu dee jigéen jox ko lépp mu dem billaahi wal kitaabi balaa yàgg balaa yàgg di nga oote waat fii na sëñ seex ma ne la naam nga ne ma la ma joxoon am naa ci ay millions maa la yónnee lii àddi danaa leen ko ci xol bu sedd guy xam-xam du soxor nañu laayante biir xam nga néew na nga dalal nit émission mu joxe yu mel nii joxe ko ciy tegtal baaxee ko nit yi bu dee kuy nooblu la wax naa ñett mu des benn bi bu dee kuy nooblu la mënta jot ci sëñ Cheikh mu kii lool sa jabar xaw laa yëpp yu mel noonu sooy naan ñaan ko ndox ba mu naan nga guux ci guux bu njëkk guux ba bu ko jàllale nga jàng yaabadon yaabadon vingt 25 fois delloowaat ndox mi ci kaas bi jox ko mu naan ko tegle ko ñett fan nga xool dana la sopp sopp koo xam ne ba nga juddoo sa ndey ak sa baay ba léegi dina da ngay wax ne lii amut bu fekkee koo xam ne nag mënoo jot ca moom la da nga wax ji bu fekkee koo xam ne mënoo joti ca da ngay bindul wal xayta alayka mahabatu min nii mais ñeenti yoon nga koy bind da nga koy bind nii ci kay bind ko nii bind ko nii bind ko nii da nga wax ci da koy bind nii bind ko nii bind ko nii bind ko nii bind ci digg bi yaa yuusuf zulayxa yaa yuusuf faaw Youssouf gi nga yaatal nga teg ci Zuleyxa baa deb dañuy takkalantoo nag yaa Youssouf Zuleyxa baa deb dañuy takkalantoo faaw Youssouf gi nga dugal yow mi bëgg ci sa kaw kiñ bëgg ci suuf nga lem téere bi sëf ko juróom-ñaari fan ba koy juróom-ñaareelu fan bi nga génn ko bi fóotir lañ koy bindee xooj ko ba mu nekk ba mu nekk ba mu nekk saafara nga aju ci kaw étage sangoo ko benn yoon jeex na ni nga ajoo ci kaw étage bi noonu ngay ajoo ci kawam yow ko bëgg kooku jox dañ ko secret ñi ngi wax ne émission bi mbooleem lu ci loo xam ne naqadina nit ñu ngi koy tuub tey mbooleem loo xam ne neex na askan bi it nii lañ ko bëggee woon di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm duñ wax ba daaneel it te ñaan luñ suñu leader bi wala sama leader bi muy président Ousmane Sonko di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci Sénégal yëpp ñaanal ko ko ndax wax dëgg na jàmmam jàmmi réew mi la ndax gis nañ ne wala yaakaar nañ ne bu yoree réew mi dana ko jëmale foo xam ne njortu kawe woon na suñu njortu souvent nag dañ naan sëriñ du politique mais yonent bi moo njëkk ca Makka ca Abu Sufyaan ak yeneen ci xiste yu gudd fa tabaarakallaahu li lañ amoon lu ñuy wax njiital réew mi it yàlla jàmmal ko ndax jàmmam mooy jàmmi réew mi bu amee jàmm rek réew mi am jàmm waaye ci kaw mu jàmmal askan bi su jàmmalee askan bi rek incha allah yàlla dana ko defal jàmm dana ko defal mujj gu rafetit defal ko njabootam ndax yéenewuñu leen ay ndax nguur moom kenn du ko force am ko yàlla la koy jox comme yàllaa ko ko jox rek yéene nañ ko ko fa tabaarakallaahu waaye ci biir yéene bi yépp ñi ngi yéene sama waaj it yàlla defal ko jàmm muy Ousmane Sonko di ko ñaanal mbooleem réew mi mboolem sénégalais yi wa ma zalika la bi aziz seen mbokk seen xarit Serigne Cheikh Tidiane Niass doofu maam xalifa borom def gis fii ci Kaolack lew nañu seen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mu ngi noonu yaakaar naa ni direct bi ñu am ak yéen tey euh, neex na leen puisque jëlee ngeen ci njariñ dégge ngeen fi xam-xam waaye itam kàddu gi sell na te yenu na maanaa ci yow mi koy déglu xam nga ni xam-xam rek moo wóor donc nag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñas la ñu seqaloon jotaay bi fii ci Kaolack Léona Niassène en direct ci Feeling Dakar TV nii rek lañ koy defee saa su nekk bëgguñu def leen loo xam ne njariñ du leen ci mën a fekk fi ngeen nekk yéen ñuy seetaan di yi donc saa su nekk ci njariñ la ñuy dox ak yéen ko ci numéro téléphone boobu di dox ci euh, suufu écran bi su ko defee nag may gërëm bu baax a baax euh, sama technicien bi ma àndaloon muy euh, Ali Rasoul di gërëm waa Feeling Dakar yëpp képp koo xam ne yaa ngi nekkoon ci régie bi muy Ahmadou Bamba Diop muy suñu PDG nekkoon ci régie bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm ki nga xam mooy suñu directrice moom itam kenn demul mu des ñu ngi koy jaajëfal jaajëfal équipe Feeling Dakar bi yëpp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 nga bëgg yëg moo koy fay. SMS boutique saxu Iliman fëlatina fu nooy ngir ay clientam SMS boutique ñëpp seede nañu seen spécialité ci wàllu tissu bépp xeetu tissu bu ngeen di tewoo SMS boutique dañ leen koy jaay nañ fa ay brocart pour jigéen brocart yu yanj am nañ fa itam pour góor ay brodé Marie Gueye brodé Monica voile Mame Faty Mbacké jesner supermanium gold ak ay filafil yu doy waar mani la waa SMS boutique ña nga ci Ouest Foire ci tëli bi yow mi bëgg 78 356 50 00 nga def 77 759 92 95 et WhatsApp la defal 77 803 66 34 SMS boutique jaay lu yomb te baax saa su ne. bienvenue au cœur de ville de Kaolack yaa ngi ci restaurant bi gën a mag ci diwaanu Kaolack ak li ko wër muy restaurant macha allah macha allah di restaurant bi nga xam ne dafa complet lépp ngi ci biir am nañ fa fast food pâtisserie bi bëgg a defar say gâteau d'anniversaire gato ngénte gato ci mën a doon seet ci ma ni la restaurant machallah yow mi bëgg a def dîner tête yow mi nga xam ne dangaa bëgg a jàkkaarloog sa waay ñëwal ci la xeetu table yu yàññi te baax fii ci restaurant machallah nee naa la dafa luxe rafet ba noppi itam ay xale yu baax te yaru nekk restaurant masala au cœur de ville de Kaolack la ma ci gën a neex mooy salle de spectacle ba ñu tuddee nëmba mu nga ci premier étage ba boo accès ba ci salle bi yow mi nga xam ne da nga am spectacle boo bëgg a organiser wal ci bile salle nga xam ne bile salle rek moo fi mën salle de spectacle nëmba wan am na lépp lu ngeen soxla xoolal ma bii xeetu salle bu yànj restaurant bii amul fenn fu dul ci cœur de ville yow mi bëgg jokkook appel numéro téléphone yooyu 33 941 21 21 da nga def 33 942 23 23 ak restaurant macha allah lekk gu neex te baax kenn dootu ko jàmbat.